saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa tafaatin may dugaat pikin pour la cinquième fois moom la géant yi duggoon na fa benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon bi mooy juróomeelu yoonum bu muy dugg pikin ba mu fa duggee lan la fa jële journal ba ni daan na fa ka wax maalaw séeraas daan fa booy sëy daan fa cek ca quatrième duggam la am Ama Baldé Ama Baldé daan ko digganteem ak booy ñaan ak mooy doon cinquième bi duggam ci pikin trois victoire la fa amoon 2015 mu newaat ko tey du baax ba ngi doog a duggaat pikin est-ce que booy ñaa dee dana ko teree am quatrième victoire li am ba des mooy xam na leen miin na leen yàgg na faa dugg ku fa toj tojaat fa tojati fa kenn du ko wax lu Pikine di saf waaye ku xam tafaatin te bëgg ko war nga koo wax ne am na liggéey bu metti liggéey bu méttee méttee nga koy xaar Pikine digganteem ak Boy Niang ku ko ne day yomb da koy nax ku ko ne bile combat dina yomb rek yaa ngi koy nax journal ba xam ne tafaatin 13 victoire yi mu am yépp amul benn bu ca yomb du digganteem ak Malaw Seras du digganteem defal bagage ceek Elton guy gi dara yomb ci jos ba ci Yékini Senior mi mu daan ñaari yoon amul dara lu ci sedd séntu combat bu sedd diggante Tapha Tine ak Boy yaa ngi nax sa bopp kuy séntu lu sedd ci waa ci saison bii ñu dëgmal yaa ngi nax sa bopp ñaari giri yi seen avenir la ñuy ci saison bii ñu dëgmal giri Senior ak giri Senior am nañ soxla am nañ bés giri Senior kan nga war a mu ne Balla Gaye sama diggante ak moom défaite ñu ne Gris Senior ak Gris Junior même situation même direction situation bi mooy ñoom ñaar ñépp ku ne ci défaite nga jóge Gris Senior Balla Gaye 2 moo ko mujjee daan Gris 2 rëg-rëg moo ko mujjee daan même direction bi mooy ñoom ñaar ñépp géejawaay lañu jëm Gris Senior jàkkaarloog Balla Gaye 2 Gris Junior jàkkaarloog Abdou Diouf loolee moo waral journal ba ne ñaari mbër yi seen avenir la ñuy joué bile combat dara du yomb dara du set bu ñu jàllee ci diggante léegi moo jaaxal ñépp staffu guy geeg waa Sénégal Entertainment Group dañoo waxoon ba juuyoo ñiy jaar gauche ñiy jaar taxaw dootuñu juboo am bees tàq ba nu jàpp ne combat ba léegi jeex na saye ñaari mbër yi jot avance képp a ci des ndax bu njëkk guy gi da doon laaj kaseb 40 ba 45 millions Sénégal Entertainment Group bi nga xam ne Mao Cissé moo ko piloté ñoom 25 millions la nu fayoon ñu dem ba ca biir Sénégal Entertainment Group daal yokk 10 muy 35 guy gi ak staffam ba tëdd ca ñag ba ne duñ ko bëre ndax sunu digganteeg Cité loolee lan ñu fayoon te combat boobee Sénégal gépp xam nañ ci ndam lañ ci jógee bu ñu bëggee ñu bëre combat bi ñu yokkal li ni mel ba ko njiital grand parti yégee Mali Gakou dafa woo ñaari parti yépp woo bi maa ko yokk wax ak waa Sénégal Entertainment Group wax ak waa staff guy gi boobee dañoo jàppoon ne buñ fa jógee rek avancé dàqe waaye boobee ba léegi dara xeesu dara la nu ndax Paala Jóob la mu mooy ba ma déggee maa aussi sa téléphone damaa xamal ni déggoo naak staff guy gi rax ca dolli ne ko jàppale ne combat bi taxaw na boobee ba léegi damaa jàppoon ne dañuy joxe avance yi combat ba taxaw waaye ba léegi li waral maa aussi seeg waa Sénégal Entertainment Group génnee avance ba léegi moo jaaxal ñëpp leneen la jaaxal amateur yi mooy diggante Ama Baldé ak bi le combat royal ndax dana taxawati le journal ba xamle foofu mooy Luc Nicolaï sera-t-il libre pour organiser le combat royal bi combat ba léegi mu ngi ci xelu amateur yi mu ngi ci xelu mbër li axlu lamb mujjee def mooy croiser les di xool fu wànnen di mujjee ki gëtam di xool ba xam ndax bi combat dana amateem déet jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci ëtt bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah